ci wèr wi wèru koor gi weer wu tedd wi weer wu wi weeru yermande wèru tuub ñëwaat ak yéen ci suñu waxtaan yu koor euh, ki leen koy amal moo di Hann TV télévision Hann TV moo leen koy amal Sa su nekk waxtu dog su su su jotee incha allahu rabbi ñu indil leen ko euh, bokk na tey ci waxtaan li ñu war a waxtaane ci koor démb waxtaanoon ci waxtaanoon nañ ci ngëneelu koor waye tay dinañ waxtane ci liñu tuddé tuddee sawm ak shuruutu sawm insha allah rabbi waxon nañu dem ci ngeenel yi waye ba tey bokk na ci ngeenel koor yow mi déglu xamal ne koor ki nga xamanteni dafa wor li saaimi farxataani farxatun fi dunya wa farhatun fi akhirah ki nga xamanteni ni dafa wor amna ñaari mbekté yu koy xaar benn mbégte bi fii ci àddina la yàlla da koy nangul ay ñaanam waaye su fekkee ne dog jot na da ngay gis ne mar wi mu maroon yëpp da ngay gis ne dafay daal di fàddu ak coono gi mu amoon yëpp ci koor gi da ngay daal di gis ne su fekkee ne dog na suñu borom subhaanahu wa taala day dugal ci moom mbégte goo xamante ni day nekk ci moom waaye beneen mbégte bi nag fële ci àllaaxira la mooy su suñu borom dina ko teral ci jaamu yàlla mu màgg jaamu yàlla bu tedd boo xam ni ma ngi ko doon amal fële ci àddina moo di koor moo tax ñu ne li saimi farxatan farxatun fi dunya wa farxatun fi l axira ponki koor nag su fekkee ne dañ ko bëgg a wax ak ay charti koor koor am na ay charte yoo xamante ni nii ñeenti charte yoo xam ni faw nit ku xam ko bokk na ci charte bu njëkk ci koor ki woor faw mu nekk jullit al islaamu maanaam ku dul jullit kon koor waru la soo wooree tamit wala nga soo wooree koor gi du wér bokku na ci benen charte bi al bulugh ka nga xamanteni da fay wor ki wor faw mu nek mu waye nak nag xale su woré baxna koram mën nañ ko ci jappalé ndax mu tagatu ci su fekké né dem na ba nek mak da nga xamni koor suy ci koor gi du ko sonnal kon ki wor faw mu nek julit ben ñaarel ki wor faw mu nek mu ñettel bi ki wor faw mu nek borom xel maanaam ku amul xel kooku tamit du wor ñentel bi ki wor faaw mu fekk na atanna wor woor nekkul ku febar kon ka nga xamanteni ni du julli tu woré koram du wër ka nga xamanteni ni xalé la mom tamit koram du wër may mën na ci tagatu kenen ka nga xamanteni ni du borom xel su woré koram mom tamit da ngay gis ne koor gi euh warut ci mom te su woré tamit du wër ka nga xamanteni borom katan la daan ci ñew ka nga xamante ne nii xale boo xamante ne matagul majeur ak ka nga xamante ne nii ku feebar la kooku daan ci ñëw nga xamante amut kàttan feebar nag mun naa nekk ñaar ñaari feebar mun naa nekk feebar boo xamante ne maradul musmin la feebar boo xamante ni maladie chronique lay doon maanaam am ci ñoo xamante ni suñu feebaree duñu mën woor médecin wax na la leen ni seen woor ñoom duñu mëna mën a woor bi fièvre la bo xam ne day ànd ak ñoom ba keroog ñuy génne adina té suñu woré mën am mu indi leen ay gàllankoor su fekkee ne médecin bi nak nee la na yow doo mëna a woor soo wooree da lay indil gàllankoor kon yow doo woor kon yow li ngay def moy lan fekkee ne fièvre bu xamante dafa sax and ak yow do tu dañati yow li ngay def moy sa so xamé ne woor nga ba dog jot da ngay leele da ngay joxé lu tollok nit ki loo xam ne mun na ko àndagoo nga jox ko ko maanaam lu toll ak mburum koor beneen bi mooy feebar ba nga xamante ni nii feebar buy dikk la maanaam marat boo xam ni naturel la tabi'i yi sam bopp day metti wala damaa xaw a sibbiru yu mel noonu kooku mun na woo mun naa toog benn fan ñaari fan su ko defee kooku su fekkee ne woorul da gis ne euh, su fekkee ne weer wi jeex na moom dafay fay waaw mais su wéree rek da ngay gis ne day jëlaat kooram moo tax su alquran wax ne man kaana minkum maridan aw neena koku fa iddatu min ayamin ukhar koku nay bayi ba wer bi su après mu don dem fay kon febar day dik ci place yoyu amna ko xamanteni ni tamit jigen bo xamanteni da fay gis gis règle koku tamit su warna ne worna koram duñ ko nangu wa momi tamit su fekkee ne worna koram duñ ko nangu su ne gis na règle am du wor ak jigen ba nga xamanteni ni nii dafa wasin ak jigen ba nga xamanteni ni dafa am dafa nek jigen werul ku bir la ku am manam ku wannu dara la ci biram wal ak jigen ba nga xamanteni tamit da fay nampal su fekke ne ñoo wor ñoomi tamit sen koor da après daan ko fay ñom kon ñi ñoy ña nga xamanteni ni dañuy fay koor jigen bo xamanteni ni jigenu mbeureug la ak jigen bo xamanteni ni jigenu wasin la ak jigen bo xamanteni ni ko xam dafa ëmboon la ak ko xamanteni ni da fay nampal kon ñu xamne koor kon koor mi ngoog charte yi jàpp nañ xam lii mooy charte beneen bi kii woor ci wàllu ponk yi koor faw ñaar bokk ci koor sino sa koor du baax bu njëkk ba yéene këpp kuy woor faw nga yéene yéene nag laata fajir fajir fajar gi di fenk ci nga yéene sa yéene mooy anniyatu qabla al fajr da nga yéene jiitu fajar di fenk su ko nga yéene soo yéene boobaa koor gi mën nañ kaa nangu mais képp koo xam ne woor na kooram fekk na àndut ak yéene boobaa kooram duñ ko nangu beneen tamit nga jàpp sa bopp bañ a lekk bañ a naan di tolloog fajar ba keroog jant bi di sox kon ñaari ponk yooyu dafa bokk ci ponk yi koor kon nag yéene faw nit ki am yéene boo xamante ni koor nag dafa nekk loo xamante nii Euh, suñu borom subhaanahu wa taala dafa wax ne koor dafa ñëw pour def ci nit ki ragal yàlla te dëgg la sax te ragal yàlla lay def ci nit ki parce que ku woor da gis ne day dem ci jàkk yi di julli kooku ragal yàlla day dolli ci moom ragal yàlla su fekkee ne ragal yàlla amul woon ci moom tamit kazalika day da ngay gis ne ragal yàlla dana nekk ci moom su góorgóorloo ci weeru koor bi jaarlee mun naa mun naa continuer mbooleem jaamu yàlla yi mu doon jaamu bokk na ci ba tey day wéral nit ki maanaam ci wàllu lan dafay wéral nit ki xam ne am na loo xam ni mi ngi lay almuraqaba maanaam di fuglu suñu borom subhaanahu wa taala dafay tax nit ki di fuglu di xam ne yàlla kat mi ngi may gis comme ni ñu koy waxee an taabud allaha ka annaka taraaka kuy jaamu yàlla dangay ngay jaamu yàlla mel ni suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi lay gis su fekkee ne yàlla gisu la xam gisoo yàlla xamal ne yàlla moom mi ngi lay gis an taabud allaha ka annaka taraaka in lam takun taraahu fa innahu yaraaka waaw day mel ni yaa ngi jàmm yàlla mel ni yàlla mi ngi lay gis su fekkee ne yow gisoo yàlla xamal ne yàlla mu ngi lay gis kon ku woor moom kese ci biir néegam waroon naa mun a naan waroon naa mun a lekk waroon naa mun a def lépp waaye da gis ne lan moo tax deful yooyu yëpp dafay xam ne am na kenn koo xamante ni gëmmut nelawut kooku mooy suñu borom subhaanahu wa taala kon koor day def ci nit ki lu mel noonu da ngay gis ne koor li muy def ci doomu aadama yi da gis ne dafay bennoo kàddu lislaam da ngay gis ñëppay julleendoo ñëppay woorandoo waaye ñëpp ay dogandoo benn waxtu su jotee ñun ñëpp ñu nekk ci koñ bi amul ñii ñooy njëkk dog cinq heures la ñuy dog ñii jot dog mais ñun ñëpp ay dogandoo benn kàddu islam mooy nekk ñun ñëpp ñu dogandoo kon tamit ñu xam ne tamit dafay yemale ka nga xamante ni ku am alal la ku ñàkk ku xaw a am am ñëpp ay yem ñu xëyee suba ba ngoon kenn du lekk kenn du naan am na lu muy def nag ci borom alal la ñoom danañ xam ne ndekkete am na ñuy toog suba ba ngoon te ñu lekk waaye nag andak ñoo ngi andak seen ngor ñoom itamit danañ xam li ñoo ñu di mos ñoom itamit danañ ko mos daal di ci delloo seen xel xam na ne ndekete am na ñuy jànkonteeg lu metti kon koor mu ngoog kon nag koor ñu bàyyi xel bu baax ku woor nag dafa am ay jikko yoo xamante ni nii daf ko war a daf ko war a aadawoo mooy jikko yu baax ku woor du wax lu dul dëgg ku woor du xeex ku woor du jëw ku woor yooyu yëpp jikko yi suufee yëpp daf koy daal di teg fii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne nii woor na assawmu junnatun ida saama yowmu ahadikum fala yarfut wala yajhal fa in qaatalahu ahadun aw shaatamahu falyaqul inni saaim nee na ka nga xamante ne ni woor na du wax wax ju bon du jëf-jëf ju bon du dàgg sant fenn moom daal lii war ci làmminam mooy ka lépp luñ ko wax ne kaay ñu def ko wala lu bon loo ko nit ki nga xamante ne ni jublu na ci moom bëgg a def ko ak moom lu naka sadul noonu da ko ne man damaa woor kon man dama wor moy man dama wor ku wor du def lu bon wa ku woor day laminam làmminam wor ci ay nopam wor ci ay beutam wor ci ay cëram mboole mi cëram kon dal koor ngok ñu japp xamne charte yi koor li faw mu am ci comme liñ la jiitaloon fo nga nek julit fo nga nek borom xel fo nga nek ku attan fo nga nek mu kallaf ñu xamne ne tamit ponk yi moom mooy kuy wor faw nga so yene wul sa koor zero la benen bi moy ka nga japp sa bop suba ba ngon do lek do nan do bolo ak jigen jigen du bolo ak gor manam du nit ki du sey suba ba ngon ba jant bi di so boba nag daganaat na ci yow lek ak nan ak yiñ la tere won yeb ba keroog fajar bi fenkat insha allah rabbi kon jotay ko rangok ci an TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen la ziyara di ñaan yàlla kooru jam ak salam di leen ko and ak yeen waxtu ndogu bu nek ñu am yeen quelques minutes ñu fatali wad doomu adama yi ci Hann TV ñi fi nekk ak ñi nekk bitim réew di top émission bi ñoo ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziyaara yàlla na yàlla nangul nangul ñu nangul mboolem jullit incha allahu rabbi yàlla nangul leen nangul ñu nangul mboolem jullit salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hann TV télé askan bi Hann TV télé askan bi